ma ñun moom ci ñëw président de la république daanaka ñun amuñu ci yaakaar bu bëri parce que daanaka ñëwoon na fi 2013 defoon fi conseil des ministres promettre ñu une enveloppe de 200 milliards waaye man concrètement 200 milliards yooyu man de sentiruma impact depuis boobu ba léegi concrètement lan la njëriñ askanu Tambacounda ndool baa ngi gën a metti euh, xëy amul euh, Tamba mu ngi bougé wul sax daanaka. kon xam nga ñun mënu ñu ci am yaakar surtout ci président bo xamni ne daanaka fukki wër ak ñaar mo la déssé ci ci njitu réew mi kon man dama japp ni rek dafa ñëw campagne politique campagne déguisée la lool yëpp xam nañu 3e mandat bi lay wajal tay gis nga dëkk bi yëpp ñu ngi ko baré ben activité mënul am té ñin ñëpp xam nga nit ñay gor gor lu lañ dañuy dañuy xey di dem outil dara alors que dëkk bi yëpp ñu ngi ko baré mobiliser tous les services de l'état la gendarmerie la police bon pour seulement di gashing ak Sénégal fu mu toll ak ndóol bi fu mu toll ak réew mi nu mu méttee dépense cher dund gi cher bon c' est regrettable daal man daal franchement wax dëgg yàlla gisuma ci benn impact en toute honnêteté.